barki yeneen bi ma nuyu leen ma mbay yaa fi jikkoon. waaw ak sama ndox. barki yeneen bi sama doomu lay sama xarit. Mhm. mais pël ba fàtte woon naa pël ba. ak moom kërëng jékki-jékki jaay nag yi day màggali Touba. Eh, eh. barki yàlla gagné 2 millions. billaay na day màggali tuubaa na day dugg njëmbat nag aka moo nay dugg njëmbat dem ba ci ba ci ba àll ba xam nga njëmbat moom ci àll ba la ñuy laajee paas. waaw jékki-jékki xoolal tafukat yi nekkoon ci biir njëmbat bi tafu xaalis bi. barke yeneen te bi nekkate xoolal jékki-jékki fa muy sawee noonu noonu di laqati di laqati kii bi. benn benn waaw benn tan rek ñëw rek laqatu. benn tànn ñëw rek daa di daa di jékki-jékki këf këf naan nii bopp bi rek daa di daw. mu jaakaar na tan baa jël xaalis bi. barke yeneen te dem ba Touba xoolal gars yi ko waaye yow moom ah. foo jógee mu ne ko mën de dama màggal si woon sama xaalis bi yëpp lan la gisatuma sama dara mu jékki-jékki mhm. xoolal daal di xel ma dem ca tan ba barki yenente bi waa ji ñëw na ko waa mais fii de màggal gi tuuba waaw ku nekk ñëw xar yeeg nag yeeg bëy yeeg tan yeeg mu daal di la jékki-jékki rek tatafu waa ji na ko tan xombal yi fu ñuy dal ndaxte xombal lan leen doon laajee paas yi waaw dëgg la barki yenente bi jékki-jékki rek tatafu waa ji ne ko waa tan xombal yi fu ñuy dal waa ji ne ko pour moom tan baa yóbbu xaalis ba. pour mu ne ko mu ne ko boo déggee man dama ne la màggal bi ku nekkee ñëw waaye tan amul fii daal rek leer wasalaam barki yéen a. ndeysaan xaw ma la may jox sama waajooju ndeysaan sama ngóor googu noonu yoroon am mbaam ndeysaan. waaw waaw Ngóor Sarr mu war a dem bitim réew. Ngóor Sarr yàlla daf ko mën visa mu war a dem. xam nga ne moom mbaam bi yàgg nan mbaam bi moom mbaam bi nekkee gone ga tey jii moom moo yor mbaam ji ndeysaan bëggul dem bàyyi fi mbaam bi loolu metti ko loolu xam nga moom nga xam te ñu dem ambassade ba lijjanti loolu man ñu demoon ci laa bokk ma dem gis ambassade États-Unis waxtaan ak moom ko kii nii mënu dem bàyyi fi mbaamam ndax moo ko yar ba mbaam bi doy nii xam nga ñu waxtaan ñu ne ah nañ ko tax ci laaf yi gars yi jël mbaam bi mhm. tax ci laaf bi bu ñu jëlee mbaam bi moom tax ci laaf yi avion bi daw daw daw daw daw daw daw daw xam nga rek suñu naan booy waaj ak États-Unis xaw ma aéroport bi xaw ma billet venu dans la dans la pays. dans la pays waaw ndeysaan États-Unis ndeysaan. par kii yeneen tëbi. saa waay yéen indépendance bi di séntu Mbambe. ay ah. fekk Mbambe dee na ba Signe. par kii yeneen tëbi saa nan ko yow di nga bëggee Europe mayoo ngay dee. Ah. ah da ngay dee. man jour boobu nag fa laa ko yemale. lu ah. des su ma ko waxatee. da nga koy daggal. par kii yeneen tëbi waaw waaw ñu def ko ñu def ko mu jeex.